assemblée nationale quarante personnes keroog bi ñuy rob sama mag ju baax ji Cheikh Tidiane sama doom moom laa jox oto ne ko demal ndax boobu man maa ngi tëdd tawat ah, yàlla dimbali na nag ma wér ci ñaaru Baye Niass Cheikh Ali ak maam Ablaye ak suñu Aliou dem ma ne ko dañuy ba ngay ñëw jeudi ñu añee julli tisbaar ba pare ñu dem pour seeti seen bi yàlla ji Cheikh Tidiane Cissé ensuite bu ñu fa jógee ñu yegg ci sëñ bi xalifa général après ñu rentré aller retour la waaye daf di lu jaadu lu war a am ndax sama digganteeg sa waajur bu góor ba ma bàyyi di booleeg moom moo xalif bii di Cheikh Tidiane Niass tey boobu maa ngi am fukki at ay quelques mois amaguma onze ans boobu maa ngi sëye ma 1951. boobu maa ngi C1 année ba ci tegoon laa waroon def entrée en sixième pour dem lycée. Mhm. dafa yàgg. dëgg la waaye boole ma itam ak euh, soxna Fatou Mata Zora di sama mag di sama jigéen. Mhm. di sama kilifa ma def ko yaay. en plus ma def ko yaay. Mhm. te yéen am na lu mu leen wax. man ñaan ñaan yu ngeen may defal ba tey. ñaan yoo xam ne yu mu ma ko doon ñaanal. ba yàlla jël ko. dëgg la ah fii nag ku fi ñëw ci turu Cheikh al nga ñëw. Mhm. muy Alhaji Ibrahima Niass. Mhm. suñu waajur suñu kilifa suñu wasila suñu royukaay. Mhm. ak njaboot gi. te kenn jiituwul ci yow la noonu laan daan doxalee ak sëñ Hassan. temps yi mu feebaree ñëw na seet si ma Dakar. bu muy dem yoonu bu mujj boobu Londres. dëgg la ñëw na seet bu ma jëlee avion di dem Paris. ma yegg Paris ci la ma l'ambassadeur Abdourahmane euh, Diaw woo ne ma kat Baye làqu na. te boobu maa nga Paris. ak a jël avion 11h. Mhm. pour dem seeti Baye. noonu laa dëppee jël avion ci ëllëg sa man ak yaama ajo yaama ñes mhm. mari yaama mhm. ñu àndoon ñibbisi bi indee lépp ñu def ba def la ca war ci bopp Alaaji Ablaay ci boppam ak sëñ bi sëñ Aliou ci boppam ñu jiite ko kon nag lii ma def tey dama ko def comme kilifa ci at mhm. kilifa ci deret ji mhm. waaye itam comme taalibe mhm. kilifa mën a ne taalibe ndax yàlla mooy jël nit jiital ko nga di jiite fii ajuma bu nekk di jiite wax yi juróom di xutba yàlla suñu borom moo ko def defoon ko avant muy sëñ Assane defoon ko avant muy sëñ Aliou def ko avant muy Baye bi nga xam ne moom moo daan jiite leen ah lii nag wareef la ma ñëw ne la maa ngi lay wax encore si gindigaale ku baax ki fi jógee yàlla de may na ko ay at ci ñaanu waay juróom bu góor ak jigéen ak ñaanu boroom këram parce xamoon naa seen diggante ni meloon parce que onze ans ba léegi yàgg na. dëgg la 1951 ba léegi. dëgg ñi am calcul nañ calculé 1951 te loolu wàññiwoo ci dara yow mii. wàññi keroog bi sama yaay làqoo yaa ñu dëgg la yaa ko jullee. dëgg la ni ñu léegi alhamdulilah ñu yóbbu ko denc ko yow mii yaa ko jullee sa maam nga jullee keroog. te ba nga ko jullee mhm. yaakaar nañ ndax yaa ko jullee waaw loolu nag moo tax ma ñëw fii seet sama jarbaat mhm. sama doom mhm. waaye itam sama imam ànd ak suma rakk ju baax ji muy sëñ Mouhamed Kourechi Ibrahima Niass démb laa ko nekk euh, suba damay dem seeti sëñ Cheikh si Cissé jàlle ko après ma dem nuyu suñu mag après ma rentré Dakar ah mag nag dafay tabat. te léegi mag la. yaram bi neexatul. dëgg la su may julli damay toog. ndax tànk bi oom bi. léegi nag ñaan gi jàll gi ñu boole ci ñaanal suñu Aliou. ak Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahima seen diggante ñëpp xamoon nañu. mos naa ñëw fii tàkkusaan mhm. ànd ak suma yaay. seet mhm. si baay. ñu dugal ñu ci néeg bi. ñu téléphoné téléphone si mu amoon boobu. Mm-hmm. ñu ne Assane Cissé day sa sët bi ñu wax ko bàyyi dafa yëgoon ci bis ca Caire mu daanu faatu. bi ma toogee man maag suma yaay ñu wax loolu bàyyi bàyyi ne déedéet Assane demam jotagul sama kanam man boo maa ngi université. mu ne xam naa fàttaliku nga affaire boobu. dëgg la mu ne jële ooyal leen ma sëñ Aliou ñu dem jëli sëñ Aliou mu toog. mu ne ko dégg liñ mu wax mu ne ko déedéet mu ne ko dañ téléphoné fii léegi ne Assane Cissé bi nekk étudiant ca Caire dafa yéeg ci bus mooy ñooñu xam ne bu yéegee bus Caire du ñu fay <laughs> biir ñooy fay ñee ca koo duñu fay <laughs> mu baraste ku daanu mu ne waaye du Assane de mu ne indi leen Fatoumata Zora ñu jël ko mu ñëw toog mu ne ko jàppaleen ne du Assane <laughs> di ngeen xaar ci kanam balaa diir danañ téléphoné ne Kerne beneen Assane la. avant ñu jógee foofu woote nañu ne beneen Assane Cissé étudiant. ca Kër en même temps que suñu Assane. moo baraste ko ca kaar ba gaañ. bàyyi lu ma leen waxoon. Ah, ah, loolu dama koy wax pour xar yéen ngeen xam. Mm-hmm. kan moo doon Cheikh al Islam. kan moo doon sëñ Aliou kan moo doon Fatima Tazora. Mm-hmm. keroog yàlla la bàyyi ñas ci boppam suñu kilifa suñu lépp. ak suñu Aliou ak Fatimata Zohra mhm. sama yaay ak man ci laa jëlee ba ma pare ma ñibbi Dakar boobu maa ngi dellu Paris pour jàngi mais loolu maa ko fekkee ñu ne ko Hassan bàyyi ne déedéet mhm. Hassan demam jotagul te ab diir ci kanam danañ xam ne du moom xanaa beneen Assane la ci la ñu wootewaat Caire ne déedéet beneen Assane Cissé la mhm. étudiant au Caire comme suñu Assane mais du moom xale yi na ngeen jàpp bu baax de cheikh al demul fen dafa làqu rek sëñ Aliou Cissé demul fenn dafa làqu rek Fatuma Soxna demul fen dafa làqu parce que ñoom du ñu dem dañuy làqu denc nañ leen nag waaye lu ñu wax ñu ngi koy dégg lu ñu xelaat xam nañu ko mhm. te ñu ngi ñaanal guddeeg bëccëg loolu mooy suma ñëw bii ànd ak suma rakk ju baax yii su ma ko yónni woon. Mhm. nga ne ça va. day na la fi sax lu ma ñetti yoon ñëw na fi ñetti yoon. Mhm. ma ne ko kaañu dem. Mhm. ba ci ba ci Alaaji Cheikh mën Cissé. ma ko jërëjëf. jërëjëf ci li nga yoree njaboot gi. nekk ci ron sa nijaay yi baax yi. surtout xalif. Cheikh Tidiane Niass mi. ba ma Cheikh Tidiane Niass di doomam Moustapha mooy ñaareelu góoram. dëgg man mii la ko tuddee boobu fukki at ak ñoom benn laa am. dëgg la année boobu laa doon def brevet élémentaire. Mhm. ci Ndar lycée Faidherbe bu 16 ans 1956. la yow nga am 16 ans di sol dàll plastique sol culotte xamoo dara. <laughs> mënoo dara. Hmm. xamagoo benn diplôme. daf ma ko tuddee ba pare ma door a am BPC. incha allah Al Islam ñëw man yëguma ci dara. seet si Umar Ngaar yi Njaay ca Ndar fa mu daan dal mhm. kër góoli ala ji man njaar mhm. ñu wax ma ne ma bàyyi ñëw na ma dem nuyu ko mu ne ma ah sa mag tuddee na la doomam de barki démb noonu laa ko yëgee seize ans waaye yow këla tuddee seize ans yaakaar moo tax mu tuddee la mu tuddee la doomam mënoo dara amoo dara yaa ngi jàng mu tuddee la doom Moustapha. kóllëre gu wér la. kooku kooku mën naa ko fay moom mii. kóllëre moo tax ba mu tuddee sama taaw Baye Xaali Ñas ka mhm. ci tegu moom laa ko la moom la moo laa yónnee woon keroog bi ma tawatee yëf yi ñëw yëf yi pour ngeen xam rek yëf yi mhm. naka la doxee mhm. xalif bi tuddee na ma doom boo fukki at ak juróom benn laa am loolu du pour yaakaar ma de wala pour yaakaar ci man dara dëgg la dëgg la ba buggoon ci boobu moo nekk ba tey dëgg la waaw kii nag moom sama rakk la ñoo bokk bàyyi ñoo bokk ne jàpp leen loolu la ak ñi topp ci Cheikh Tidiane ñëpp samay doomu bàyyi lañu kër kër kër kër sama nijaay ak sëñ Aliou Cissé nag moom fii la nekk moom. dëgg muy asan mu yow mu ñoom ñëpp nag. Mm, bi ci ñu mu ñi. dëgg loolu mooy sama yoon. sëñ bi jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay jërëjëf di leen nuyu nuyoo bu kawe looloo moo xam ne président Moustapha moo ko jiite ànd ak rakam Cheikh Mouhamadou Quraish. kenn xamul sax lan lay wax ndax cofeel gi nga xam ne moom lañ leen teeroo ak moom lañ leen ameel ci xoli yi bañ déggee ne yaa ngi ñëw Cheikh Mahamadou Khoureychi bu ootee ne bu ngeen di départ départ Dakar danañu oo wax ñu ko dafa fekk maa ngi julli ji tusubar waaye foofu laa ko yëgalee ñëpp ngir bëgg ci sa ñëw ak wane ne sa ñëw du ñëwi ku nekk waaw ñu bari ñëw nañ fii de waaye mbégte bi ñu am ci sa bos duñ ko am ci beneen ndax yàlla moo ko def ci daraja ji la yàlla teg ak li nga xam ne moo nekk suñu diggante te lépp nekk di ay mbaax yoo xam ne luñ ci fàttaliku rek gën a bég euh, sëriñ Mahi Cissé suma rakk dafa maa nettali sànq bi ma ko yégal ne ko yaa ngi ñëw ci kanam mu ne ma suma yaay nettali na ma ñaan yu ko Sidi Ali dénkoon ne na ko koy defal gannaaw julli bu nekk ma ne ko man nettali na ma ko bu yàgg mu ne ma benn bis dama ko wax na ko yaay yow li nga fonkee suñu yaay Moustapha damaa bëgg nga ma exact lan ne ko sëriñ bi moom ma ko dénk pour ma koy ñaanal yàlla ma xam ne sëriñ bi du dénkaane caaxaan ñaareel ba itam yaayam muy maam Abisata dafa sonn ci suma ñoom yaay bañ nekkee koo si ak baay dimbale leen te jamono boobu soxla woon nañ dimbal ne ko bu ma fàttalikoo ñaar ñooñu rek fi ma ko teg du ma fa teg kenn kon nag loolu kóllëre la xam ne ci yàlla la fasu te dafay continuer du jeex mukk te li ma la wax rek cheikh ba mu ñëwee cheikh Mouhamadou Quraysh ñëw waa assemblée yëpp ñëw yow ñëwoon nga ba pare ñëw bi dooleeku leer la rek ci kaw leer kon duñ def lu may ñaanal la yàlla yàlla yàggal la fi ngay la dund bu gudd gudd ci kanam te sa dund lu barke la lu ñu soxla la yàlla na ko yàlla yàggal jox la wér ba nga xam ne itte yëpp danga ko mën a dox lépp loo xam ne itam yaa ngi ko een bëgg ko yàlla mottali ko ci sa loxo nga def ko yow ci sa bopp ñun daal gërëm nañ la bu ñu xoolee wàlli soxna si gërëm la bu xoolee wàlli Sidi Ali gërëm la buñ xoolee wàlli Cheikh Ibrahim gërëm la lépp nag mbaax rek la moo tax ñaan yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko féetoon di la ko defal ñun tam ñu ngi fas yéene taxaw ci di la ko defal waxtu bu nekk yàlla di la gën a yëkkati di la gën a yokk te lépp loo bëgg rek yàlla defal la ko te mën loo la ko itam nga def ko ci sa loxo li nga bëgg ci sa bopp ak li nga bëgg ci njaboot gi lépp yàlla xam na ko yàlla la ko defal yàlla yàlla yokk te barkeel sa lépp lépp loo jub rek yàlla amal ko yàlla mën na loolu yàlla na ko def ci mbooti war a fa anaaw makaanan aliyan bi ma waxoon ci mbooti laay yooyu yàlla na sax ak yow alhamdulilah